الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة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 yéen suñ mbokki gardien yi yéen suñ mbokki malade yi nekk ci hôpitaux yi yéen suñu mbokk yi nekk ci sellerie prison yi yéen ñëpp maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan baat yooyu li mu làmboo yàlla na ci yàlla dëgg làmbale ci seeni mbir àdduna barsax àllaaxira defal leen ko defal ju ko yàlla mën na ko am na ko sañ nag ko ca kartanam gu amul limite ga sañ-sañam bu amul dayo ga yàlla na yàlla defal leen ko te defal ñu ko bi barakati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama mbokki jullit yi maa la dëxaloon leneen daal bu ma fi del siwaatee danaa waxtaan ak yéen ci xisaas qisas moy li nga def rek ñi def la ko so raye nit ya ko tay nañ la ray kenn mënu fee jëlee rey ci lu ray mënu ñu hëpp yalla mi bind minde fi yërmande ci minde fi ni yalla yërmé minde fam yi amul kenn ku leen ko yërmé lum xatte ne mom lañ wara doxal ku ko wut da nga sonu ta li nga bëgg du xam bu fa kenn nekk fa di déglu droit de l'homme bu yàlla xasee wax droit de l'homme jëratul déglooti ndax waa droit de l'homme boo leen dégloo li ci ëpp ñoom daal bañuñu ku rey waaye fa mel dañoo bañ ku rey ki rey lañ bañ moo tax boo leen di déglu droit de l'homme dañuy défendre ki rey bëgguñu ku ko rey waye ki xas dee moom dañ ay bakkan bi comme ken musu dekil pare wu ngir defandar ko yalla nak ken du moom mom dafa defandar ñaari bakkan yeb fekk boba de sax amagut mu jël atep ne yow mi di dundu ya kii ngeen bokku pénc mi ma andi len fi ngeen bokku fi waref bokku fi sañ-sañ bokku fi ay yelef So topé sa xol bu bon bi ci yeb iblis ba ma tax nga ray la nga ray sa mbokk mi nga bokkoon ak pénc mi ah ray gi du yem ci moom da dama lay ray rek damay xàtte ci yow ñi ray la nit nag lu mu bon bon bon bëgg boppam bu la wóoree péng ne boo reyee sa mbokk mi ñi ray la danga nga jañal sa bopp ak rey ci jañ gi ngay jañal sa bopp ak rey ngir bëgg fee des loola tamit ngay jañalaale sa mbokk mi ak rey ba mu des fi moo tax lislaam ba muy dànkaafu booba manam ray amagut waye droit de l'homme bala wax rek ci l'homme bi day fekk dee am ba pare yalla nak bamuy wax boba sax l'homme bi ñi wara ray du dogut bala yalla lay défendre say ak dila jox sa ak yi nga am dila jox sa sa sa yi nga am wallahi boba yow amagulo xolal yalla mi ngi commencé di lay baye xel ba nga juddoogut wax sa bàyyi ne ko demal nga tan jigéen gu tedd gu sell comme da ngaa yore jiw bëgg ut suuf su baax demal uti soxna su baax ah xoolal loolu yàlla ngi lay tànnal yaay te yow ko mu wax sa yaay ji ne la nag demal nga wuti jëkkër ju baax bul ñàkk fayda guru guñ la jox nga jël ki matul jëkkër wallaahi bu la takkee koo maanaam koo matt jur rek moom ngay am waaye ku jël sa nawle jur sa nawle ku fexe ba sa nawle jël la tamit nga am ak moom doom ju leen mat nawle xoolal yàlla ni muy tànn looyee yaay ji jëkkër ju baax tànn looyee baay ji jabar ju baax ñaar ñu baax nag lu baax rekk moo ca mën a génnee lu rekk la wa tayibaatu li na wa tayibuuna li tayibaat jigéen ñu baax ñi ñoo méritoo góor ñu baax ñi denc leen góor ñu baax ñi ñoo méritoo pour denc jigéen ñu baax ñi ngeen bàyyi nag nag jigéen ñu bon ña góor ñu góor ñu bon ña denc leen góor ñu bon ña tamit dem denc jigéen ñu bon ña nga dem ba ne gis naa ku ma mat nawle lislaam ne attention bu ko jege bul xool ci moom lu ëpp xar-xaramam ak cet ténqam ya cet ténq ya ci ngay xamee naay ak yaramam wa kar xaramam ba ci ngay xamee taram ba yam ci kep nak solol sa dal dem seti ay parents am nga waxtaan ak ñom bu ngeen jubooyee nga indi cyan iliman tok ngeen takkee ko ci sama téré bi di alquran seedeye ya sen mbokki julli ñi seede ko su ko defee nag ba door mëna fasu sëy ba fasu na mu attention bul am ak mom rapport boko ko demal nga sangu wala nga japp julli ñaari ñaan yàlla rapport bii nga bëgg a am ak sa soxna si sa soxna si tamit def ni nga def yàlla na ci yàlla génnee doom ju leen mat nawle attention bala ngeen a dajee xam leen baat yi yonent bi jàngale allahumma janni jannib na shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtana waaye waaye yow yàlla li nga wërsëgal ñu yàlla bu ci shaytaane am cër te juddoo góode lii droit de l'homme fa koo man mu nekk ca loola toqantal ma nuyu ba ñëw yàlla composé ko jaar moom fam jaar moom mu commencé commencé am gaw l'islam am baat yum lay wax nga diko jang diko ray ca biiru soxna sa di dalal kelam, bagn ko nakaral ki diiru ëmb bi utal ko dépense bu wuuteeg dépense bam daan ndax dafa am luy dund ci moom nga nekk caag toppatoo ga ci ak toppatoo ga ba nga judd jaar fa nga wara jaar muy summa sabila yasarahu fofa yeb nga fa jaaré mune amago tour nañ noddu daq seytaane bu mu la jege nañ liqaam daq saytaane jox la tur rendi la gàtt te yow mën a goo liggéey lu mat dara mën a mën a ma xamagoo sax lu mën a liggéey ganaar ñu rendi la xar tuural la deret booba ca bisab juróom-ñaareel ba ca ngénte la def ko ay ñam saraxe ko jullit ña ñaan ca jalal bi ko ñaanal la yàlla lekk ca ñaanal la yàlla demagoo nga commencé di ñëw jàng dox ak raam ak wax l'islam ñew jox la say ak ne bu amé juroom ñaari at na ngeen ko jàngale sama téré bi di alquran mu jiitu ci xolam bi da ngeen digal ko mu commencé di julli bu amé fukki at bu bañee julli door leen waaye door ya bu mu damu yax bu mu nàccel cër lii nag koog di la teete di la teete di la teete ba nga xëy nekkam ponkal tabarakallahu dem ray nit l'islam ne lañ la ray bu ko defee tamit droit de l'homme taxaw fale naan nangam ak nangam comme kii xas na dee na boo rayee kii ñaari bakkanay dee fekk nag lislaam moom li mu wax buñ ko toppoon ñaari bakkane benn du ca dee ndax dafa dànkaafu rek kii bu wóoru ne bu rayee ñi ray ko rek ala kulli xal du ray kenn al qatlu anfa min al qatli la daan loo daan yaaram yi daan wax njëkk njëkk lislaam di ñëw moo tax kon xisaas boobu laa lay wax bul ca déglu nag droit de l'homme ndax moom bi muy kaasal lom bi fekk na ñëw na yàlla bi muy jox droit lom bi fekk na yegg seegut boo demee ku mel ni im ibnu xasmin dafa ne sa doom ji bu ko sa yaay bu ko yaay ji ëmbee rek sax mën nga ko commencé génne xalil muram koor xoolal mi ngi koy mi ngi koy teg ay xatt te fekk juddoogut ëmb booba bu ko yàqee dañ koy attee muy ku rey nit dóor sa jabar wala nga gaañ ko ba mu avorté ñu attee la ku rey nit yooyu yëpp naa la ci yegsil lolu droit di lam da ko man motax kon nak al qisas la lay jangal limuy tek ci luxa nak moy tekki al asaru ji firi jeexital topatu dara ba top jeexital ba mom la alquran wax fartada ala athirihima qasasa Yang koy fekke suratul fi ci diggante qisab musa tamam sa muy yusuf ibnu nun kon al amanam al qisaasu mi ngi bàyyeekoo ci kasas xasas nag mooy tekki athar mooy jeexital boo demee ki ngi seen xam-xam màcc ci wàllu baat ak cosaan la ku mel ni Ibnu Mansour nga seeti ko ci téere bu ñu tudd lisaanul arab noonu la ko waxee mu ne arab bu waxee ne xasastu shay'a mooy ida tabaatu atharahu boo ne boo bu arab ne toppatu naa mbir ma rek mooy boo toppatu la jeexitalam shay'an ba'da shay'in xasastu shay'a ida tattabatu atharahu shay'an ba'da shay'in moom nga dégg alquran waxaat ci xisaab yonentu yàlla Muusaa mbokkam ma wa qaalat li uxtihi xusihi maanaam toppal jeexitalam kon baat baa ngóog loolu lay tekki ci luxa waaye nag maanaa am ci fuqaaw yi moo gën a matale mooy ki def ñu def ko lim def rek ki def nañ ko def lim def ko kooku mooy xisaas su fekkee ki def dafa rey nit moom nga def te rey bi yaa ko tay yow mi ko rey nekk nga ko am xel yow mi ko rey nekk nga ko mësoor ki nga rey ab jullit la ki nga rey ab gor la nañ la rey yooyu ma wax nag benn mënu cee manqué bu ci manqué duñ la rey muy ben ñaareel bi wala nga jam nit ya ko jam ci condition yo ma wax la yooyu yëpp ci nekk julit gaak nekk gor ka ko def nekk ko am xel ku ko def tamit nekk ku mësoor nañ ko jam nim jamee nit ki dul mu jam jam boo kam ne bu borom fayoo rek mu dee jam jamam mbaq dañ koy laaj diya danaa ci yegsi kon loolu moy xisaas kisas nak ay xaaj la xaajam yépp man nga koo séddaliku ci ñaar xisaas bi nga xam ne fayu goo xam ne ci wàllu rey la ak fayu goo xam ne ci wàllu bakkan la ci wàllu maanaam euh, jam-jam la xisaas boo xam ne da ngaa rey ñi rey la wala xisaas boo xam ne da ngaa dagg loxom nit wala nga jam nit ki wala nga buqi bëtam wala nga daggam noppam wala nga dagg baaraamam ñi dagg la la nga dagg ci moom rek mu jeex ñaari xisaas yi rek moo am xisaasun fil xatlaa xisaasun fil juróoxi ñaari rekk la xisaas nag fil xatlaa balaa mën a am rey nit ki ñi lay rey na fekk ba nga ko rey yaa ko tey waaye ko rey nit ci njuumte téere bare fatal mu rëcc rey ko wala nga doon rëbbi mu rey ko wala nga taal sa oto bii di dawal mu saaraam mbaa fere ya naqari fekk tey xamoo xamoo ko woon làmb dajoo dara mu dal ci kaw nit ki kenn du la rey dañ lay laaj diyee rek ndax tayoo ko am na ci nag jëf-jëf yoo xam ne fa niru tay yi niru tay dañ koy yëgal ci tay de dafa am lu ñu tuddee shibhul amdi amdu am na xatawu am na shibhul am na mais shibhul xata yi tamit am na yëpp dinaa la ci dikkal kon ku ray nit yaa ko tay dañ lay ray ci sartaab yaa saxal ne maa ko rey te tay wala saxalulu ko waaye dafa ami seede ñu ko seede ñoo xam ne ay góor lañ tabaarakallaahu mat ñaar góor lañ góor lañ mësoor nañ maandu nañ ñoo seede na yaa ko rey te danga ko tay su boobaa dañ lay rey rey ga nag mi ngi mi ngi ajuwoo ci loxol ñi méngoo dereeti ki nga rey ki nga rey daal yaa rey seen baay doom yaay taxaw wala nga ray sen mbokk mbokk ya taw wala nga ray sen bay tëx ba euh, dom ya taw nga ray sen nijaay jarbaar ya taw ñepp juk taw ñako ko waral ña méngoo deret ja daal ca asaba ya ñoo juk taw su boba bu ñewé taxaw kalaame la yobul ci yoon yoon dana leen deglu ki ñatt ne leen bu leen nexé ñi ray ko bu leen nexé ñi laaj ngeen laaj ñaata ngeen bëgg mu jox leen ko ci alal alal ji amul limi lu ngeen d'accord rek su ngeen ne milliard mu joxe ko jox len ko su ngeen ne 1 million ngi jox len ko su ngeen ne 500000 ngi jox len ko lu ngeen laaj rek bu ngeen ne nak bu len nexe timi benen benen dossier bi len ubil moy bu len nexe ngeen jéggal ko kon sa yo raye nit ta fek ya ko tay ñi nga rayal ñoo mom sa bakkan bi moy ñam mengo deret ci nga rayal buñ moomee sa bakkat bi nak ñett yi luñ ca d'accord l'islam d'accord na ca bu leen neexee ñu ne dañ dañ lay ray waaye ñoom duñ la rey nag boobaa ah, ah, ah, waxoon naa la ko xaadi bi xat bi mooy xatte ak am ñum désigné ñi rey la mu jeex suñ ne ñun dañuy laaj dieu jox téeméeri million foofa dieu dieu ay rey amul amul fenn foo alquran waxee ne ku rey moo ko tey jo laaj leen ko dieu nangam dieu yi ngay dégg ñi koy laaj yëpp mooy reyam njuumte mooy téeméeri gëlem de wala ñaar téeméeri xar ci ñooñ xar demeet euh, ñaari junne xar laa bëgg a wax buy ci ñooñ nag tabaarakallaahu ñaar téeméeri nag ñaar téeméeri nag ngay joxe ci ñooñ nag su fekkee ci gëlëm téeméeri gëlëm su fekkee ci xar junne maanaam ñaari junne xar ngay joxe su ko defee nag beneen ba mu leen neexee ñu ne jéggal nañ ko te dese payoor ak yàlla ñett yi ña méngoo dara jël luñ ca wax rek lislaam d'accord na ca waaye nag bu fekkee rayam njuumte la nag moom kenn du la rey lañ man daal mooy jéggale buñ ko mënut ñi laaj diya dee ja nag du li leen neex mais li lislaam xas rëdd téeméeri gëléem ca na ma la ko waxee xool tabaarakallaahu ñaar téeméeri nag ñu jàpp nag ya ñaari junne xar ñu jàpp ne loolu lañ war a joxe yooyu yëpp naa la wax àtte bu ne ak mazhab bi ko wax suko defé nak fayu atte bobo ca ray ga moom la alquran ni ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alqisaasu fi lqatla untha bilxurri walabdu bilabdi والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم كون رايانغوك تبكان yalla neena faratal nañ ci yeen fo fekk batab kutiba ci alquran rek hatte ba duul luy neex bakkan waye bu ko bakkan jeli rek dana xamne ne lim doon bañ mo gën ci mom fo fekk kutiba rek hatte ba bakkan bëggut ko moo tax ji nga hor bàyyi lek bàyyi nan bàyyi jotee weeru lëmb fi fajar qare ba jant sox bakkan sib na bu ko defé mo gën ci mom tax kutiba alaykumus siyaamu nit ki dem bay ba dee bay bëgg a dee dëgg ma la àllaaxira wana wan gannaaw bakkan bëggu ko de yàlla ne fa defal testament kutiba aleykum idaa hadara ahadakumul mawtu wasiya taxaw sa kanam loolu bakkan bëggu ko waaye tamit gàddul jaasi nga dem xeex ak sa morom koo xam ne nit la ngeen rayante kutiba aleykumul qitaalu bakkan bëggu ko waaye tamit rey nit ñu jàllal bi ko raay la bakkan bëggut ko moo tax mu ne kutiba alaykum ah yàlla sam kutiba alaykumul xisaasu fil qatla moo tax baatu kutiba foo ko fekk rek tabaarakallaahu la yàlla di wax lu lu bakkan bëgg waaye buñ ko ko leeralee ba mu jëfandikoo ko rek dana fekk moo gën ci moom yàlla de àtte naa rey àtte naa fayu ci ñuñ rey ña bu gor reyee gor rey leen ko moo xam góor la moo xam jigéen la gor bu góor bu reyoon gor bu jigéen tamit rey leen ko rek foofu amul foofu parité rek moo fa ne gor bu jigéen bu reyee gor bu góor rey leen ko bu fekkee tabaarakallaahu nag gor moo rey jaam laaj leen ko diya waaye bu leen ko rey fekkee ne jullit la mu dem rey ab xéeféer kenn du ko rey bu dee ahlu zimma borom xam-xam yi wutee nañ ci mooy koo xam ne dafay dund ci réew jullit ña xattee jullit ñëpp tegu ci kawam waaye du wut jullit li gën a wér duñ ko rey su ko defee nag yooyu yëpp naa la ki ñëwal ci diyaat yeneen ya ci xaju waaye teg aaya bii daal mooy tegtale ku rey dañ laa war a rey ci alquran moo xam ki nga rey góor la moo xam ki la rey góor la moo xam ki rey jigéen la moo xam ki ko rey jigéen la comme ñëpp góor lañ jullit lañ mësoor nañ xam nañ xel xalaa kulli xaal la ca lislaam attee ña nga reyal te yaa ko tey ñoom sa bakkan bu leen neexee ñu ne nañ rey bu leen neexee ñu ne jox leen ñu diya wax lu leen neex bu leen neexee ñu ne jéggale nañ Lola jeexna koku moy qisas bu njëkk bi ci ñu ray bu ñaarel bi moy qisas fayu go xamne ci jam-jam la Ya dag cërëb nit mu dag sa cër bi rek ya dag nopp ba mu dag sa nopp bi dag nga bara mu dag sa baram dag nga loxo mu dag sa loxo yooyu yeb li ci l'islam wax mi ngi mën amé ci ya ko dag ne mako dag ta te tay wala ñaari nit sédé ko ca dag ga ne ya ko tay mu jeex bu mbir mi demee yóbbu ko ci yoon dañuy dañuy dañuy weyel loola fay ko ci yaw mom la alquran ne wa katabna alayhim fiha anna an nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu zalimuna demal seeti ko ca suratul maida aya 40 jëm ba 45 kon atte yaa ngoog xisaas ñaari xaaj yi rekk la xisaas ci bakkan rey nit ñi rey la walla xisaas ci lu bakkan jam-jam yi wala deme ni cërëb nit boo wàññi mu wàññi sa cër ba rekk soo ma dégloo nag danaa la wax lan moo tax yàlla yoonal xisaas ne ku rey rey leen ko wala ku dagg loxoom jàmbur dagg leen loxoom dara waralul ko lu dul dafa ko def ngir jàjji tooñkat yi ndax saay saay bu wóoree ne bu defee lim def ñi def ko ko du ko defati waaye timit dafa koo def ngir gën dalal ak dundu gu teey ci ñi ak sécurité ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo nekk ci société ba waaye su ne yow lu la ñu di man di def ti mën na caa génn foofa jàmm du fa fay du fa fayul sa bopp moo fay sës te boobaa dafay hëpp moo at loi réew mu man di dan bu amatul loi rek yàqu ndax fa muy mujj dañuy mujj di fayul seen bop parce nit ñi buñu fayulé seen rek musiba mi am motax yalla andi na qisas radan lil mujrimi waye def nako timit ngir ak saxal ak dundu ak ak sécurité ci nga nek ci société ba bañ nit ñi di tabarakallahu di faywante ci seen biir te su boba lool da yaq société bi dafay indi ak ak ak salfaño go xam kenn mënu ko régler moo tax yàlla wax ko ci waxin wu sew ne walakum fil qisaasi xayaatun ndax baat ñu ne jumla ji moo gën a fasaa ci alquran mooy tabaarakallaahu mu saawaat waxinu araab boo jàng balaaxa dafa am lu ñuy tuddee ijaas am lu ñuy tuddee naat am lu ñuy tuddee musaawaat sëriñ daara moo du mu ne rahmatullaahi alayhi fu ñu la waxee ijaas maanaama moo ëpp baat ya fuñ la waxé itnab badia yaa manaya fuñ ya la waxé musawat badia ak manama ñoo xem kep suma ma la ko doon wax mu gën la jege ci njàngaleem sëñ dara Cheikh Modou ijaz dal moy dal lañ doon wax yow da nga ko waxé ki nu gëna gatt ni liñ doon wax nga wax di way da nga ko waxé nu gëna gatt itnab moy lañ doon wax mom da nga wax ba lañ doon wax musawat nak mom dang ko waxe ko daan waxe rek yokko ci dara wo ci dara kon musawata ngok ak ijaas ak langga langa arab yep ñetti ñetti ñetti ñetti yoy rek mo len teunk ñetti jumla yoyu waxinu arab benu wax ja nek di ijaz wala muy itnaab wala muy musawat amul benu langga arab manam langu arab gennul ñetti ñet ñetti jumla yoyu motax yal ne walakum fil qisas hayatun waxoon naa la ko bañ koy firi ca nidaatu rahman kon nak dundu mi ngi amé تبارك الله تيك fayu ndax nit ki bu ko horene bu raye ñi ray ko dana ñongel bakanam ba ñongel la bakanam kim na moon a rey jàmm xam ci pénc bi ci society bi mu jeex kon nak wal hayatu lati fil qisas tan bathiqu min kaffil maanaam junati anil ictidaai saatal ibtidaai fa lati yuqinu an yadfaa hayatuhu thamanan li hayatin li hayati man yaqtuluhu jadirun bi an yata bi an yatarawa bu ko defee nag wayu fakkir wa yataraddad kama tanbathiqu min shifaa'i suduri awliyaa'i dami عند وقوع القتل بالفعل من الحقد ورغبة في الثأر xam nga waaji bu hóoree ne bu rayee ñi ray ko hee dana jàjjeeku ñoŋeel bakanam ba ñoŋee laaleel bakkanam kim namoon waaye kii di di mbokk ñi rey mbokkam mu wóor ko ne buñ ko rayalee buñ rayee mbokkam mi danañ ko dàmp ci alal ba xolam sedd wala moom moo jéggale ci xol bu sedd wala ñi rey ki ko rey xolam sedd wallaahi dana am ak dal xelam du xalaat mukk muy jug di ne damay dem di boomi di fayeku ji te gis nga jaahiliya jaahiliyatul wusta li leen jeexal yépp mooy ku rey sa baay nga rey ko ku rey sa baay nga rey ko ak foo mën a dem ba ngay jàng duraydu su mab nu hindin basarat niiraanu jàng ko yow ma uwaaraatin koo xam ne mbokkam nàmpaaleem dong lañ rey mu gëñ ne famille bii rey sama mbokkam nàmpaaleem mi danaa rey ci ñoom téeméeri nit benn bakkanam mbokkam nàmpaale nga jëndee ko téeméeri bakkan lu xamut fa mu dem taxal safara tabaarakallaahu jël bani tamim di leen dugal di lakk di lakk di lakk ba sonna lakk ci safara si téeméer nit ñu manqué benn ndeysaanam benn waay bokk ci bani jara bara jim ñëw seen safara wa muy takk ab siisi siise la mu ne ah lii de bu ko arab yi mosaana def rek xamal ne dañuy lakk yàppu yàpp wa xeeñ na ko nag ndeketoo eh, eh, eh, moom mu tegal ko yàpp xar mu départ rek ne safara wee may seen ma ngi xif bay bëgg a dee fa démé dana fa man lekk yap yap wa may xéñ rek mu dem gis ñi jappoon ni nga di lakk ci biir safara wa mu bëgg daw yow fo bokku mu ne ma ngi bokku ci banni barajim waji waa ne banni barajim nak ak banni tamim dañu am lu leen boole ci ak mbokk mu ne jël leen ko ngeen duggal ko ci safara wi mu motali téeméer ya sama nisar bi doora mëna araab yi di léeb ba léegi ne ki gën a texe texeat di texeat di piir mooy kii ñëw bokk ci banni barajim ba tax tey ñu jël ko dugal ko ci safara wi nii xoolal loolu ba maanaam jaahilatul wusta yëpp looloo leen jeexal ku ray sa baay da nga ko ray ku ray sa yaay nga ray ko ku ray sa mbokk nga ray ko rayante ga dem du kenn xamut fa muy xam yàlla ne na bu ngeen bëggee dund bu tey wala kum fil qisaasi xayaatun bu la wóoree ne boo rayee ñi ray la dootoo waaye nit ki tamit bu juumee bañ ray ko bañ xam ne rayal nañ ko mu xam ne tamit lislaam a koy fayul mais du na ko yow yaay dem fayu ji xelam dana dal du dem di di boomi kenn dundu xam jàmmu xam kon kenn du alquran nañ déglu alquran bàyyi ba ba nga naan ay droit de l'homme ak yu kenn xamut xam ne ba ngay kaasal lom bi fekk mi ngi fi yooyu taxul ñuy wax de nañ bàyyi loola yàlla kenn du ko jàngal ñu ngi doxalee àdduna bi moo ko bind xam niñ koy doxalee moo tax kon nag arab yi yëpp loolu moo leen jeexal seen xare yëpp ci loolu la jeex tabaarakallaahu comme demee ni xarbul buus la ca dee ñi xam ko ci ñoom la ca dee ci ñoom kenn xamut nuñ toll aa ah, gis nga ji jamono tamit gis nga deret jaa ngi tuuru ci jamono ju ne bañ bàyyee xatte yooyu lañ torox gis nga fu mu nii suñ Sénégal kii ñu ne ay jullit lañ quatre-vingt-quinze di 97 xamul benn bis bu dul boo dégloo rajo yi rek dana xam kuñ ray te rey koo xam ne du tegu fen bis bu ne semaine bu ne weer wu ne la cay dee kenn xam nu ñu toll te lépp ray goo xam ne teguwut fenn rek su ko defee nag kon a fayoo ngóog ci lislaam nim ko yoonalee waaye lislaam nag dafa wane ne rey ñaari xaaj la ray ak tay ak ray ak njuumte kenn ku ne ñoom ñaar dana séddaliku ñetti xaaj dafa am lu ñuy tuddee xatlu am din rayab tay carrément am lu ñuy tuddee xatlu sëbëxee am din ray boo xam ne dafa niru dafa niru maanaam tay am xatlu xata in boroom xam-xam ya dellu ko tamit xatlu sëbëxil xata mooy ray boo xam ne tamit dafa niru njuumte kon rayab tay am na ray bu niru tey am na rayam njuumte am na ray bu niru njuumte tamit am na su ko defee nag kon ñetti xaaj yaa ngoog mbaa ñeenti xaaj yi boroom xam-xam yi gën a bëri na ñetti xaaj yi rek lañ jël mooy rayab tey ak ray ray boo xam ne fa niru tey ak ray ak njuumte rek mais ñu ci bëri jëluñ ray boo xam ne dafa niru njuumte njuumte njuumte rek la jeex na bu niru njuumte tamit amut moo tax li ëpp ci borom xam-xam ñettee lañ jël ray ak tay googu ma njëkk laa wax dafa am sarta bala ñoo ray ki ray na fekk ki ray moom ci boppam moo jublu ray ga carrément moo ko jublu muy benn ñaareel ba na fekk ki ray ku am xel la ku mësoor la waaye bu mësooree te amul xel kenn du ko jàppee tey njuumte lañ koy atte su fekkee tamit dafa dafa dafa dafa xel waaye mësoorut ba tey njuumte lañ koy jàppee ndax tay xale moom njuumte ñoo xam tay ak dof moom njuumte ñoo xam ñetteel ba tamit na fekk kiy ray nii rayab tay na fekk imaam deseni wut ko pour mu rayal ko ku ñu war a ray ke imaam na demal nga ray kële jox la jumtukaay yoo koy rayee kooku kenn du ko wax ndax kenn du la ray ñeenteel ba na fi na fekk kii nga ray jubluwutoon pour ray la waaye bu ñëwee waa ji ngànnaayu guddi ñëw bëgg laa song jël sa xalal nga moom défendre sa bopp ba nga ray ko kenn du la ray te moom safara la jëm. bu la rayee yow nga dem aljana soo ko su la rayee tamit dañ koy rey mu dem safara yow boo ko rayee kenn du la rey ndax man qutila duuna maalihi fa huwa shahidun la yonent bi waxoon kon yi na fekk yëpp dàqu rayab tay daal ba lañ koo tuddee rayab tay na fekk yaa ko ci jublu waxal ko sa bopp mbaa seede yi seede ko na fekk bi nga koy def xam nga xel mësoor nga na fekk kenn rey loo xut la kii mu nekk ku nekkoon kuñ war a rey na fekk yow tamit kenn dugutoon song la ngir bëgg laa rey nga défendre sa bopp ba far reyaale ko ñeent yi bu ca dàqoo lañ koy door a tuddee rayab tey moo tax yooyu yëpp am na xadis bu ko tegtale abi hurayra moo ko génne ci yonantu bi tirmisi yoog nu maaja abu daawud ak nasaa yooyu ñu solo ko ñu ne génn góor dafa rayoon moromam góoram ki jamono yonantu bi mbir ma dem ba ci yonantu bi yonantu woolu ñi méngoo deret ja mooy mbokkam ma leen nag lu xew ni ngeen bëgg rek la ñu def yow nag léegi yow yaa ko rey mu ne waaw waaye nag ba ma koy rey jubluwuma woon rey ko mu wax loolu ah loolu la wax di dañ ne qatala rajulun fi ahdi rasulillahi salaa salaam ah fa rufi'a dhalika ila nabii fa dafa'ahu ila waliyil maqtuli mu yonentou bi jagn ko jeme ko ci mengo ñiray ñiray deret ja ke ki ñi rayal ko ne ko mengo yonentou bi ne kon nak mbir maa ngi seen bu len neexee dañ koy ray bu len neexee ngeen laaj de bu len neexee nga jégal ko fa al qatil ya Rasulullah, wallahi ma aradtu qatlahu ki ray ne yow yonentou bi maa ngi lay gëñal ne jublu mo ray ko yonentou bi wax ki mengo deret ja ne ko amma innahu in kana sadiqan suma qataltahu daqalta daqalta nara li mu wax su fekkee dëgg la yow boo ko rayee safara nga jëm waa ji ne kon man jéggal naa ko fa xalaahu rajul góor gi ne man ba banaa ko wa kaana maktuufan su ko defee nag kon noonu la demee kon waa ji su fekkee ba muy rey jubluwutoon ray dafa juum walla mu am am mbiram accident rek la yu demee noonu kenn du ko rey kon wax naa la tay gi kon hadis boobu mooy tegle ne ray tay ñi lay war laa rey ci tay rek la mën a amee kii indil nañ ko yonent bi kalaame ko mais duhul tay moo tax yonent bi jegal ko wa bi ci tegu maa la waxoon xel dama laa waxoon ne la ci bala ñu war a waaj na fekk mu am xel de boole koog masoor xadiis a ko tegtale demal seeti ko ci imaam Ahmad Abu Daawuda Tirmisiyu mu bokk ci xadiisu Ali Ali Ali karamallaahu wajhahu moo waxal boppam ne rufi'a al qalamu an salaasin maanaam yëkkati nañ xalimbaak dogal ga walis ñett anil majnuni xataa yafiqa wa anil naaimi xataa yastayqasa wa anil sabii xataa yaxtalima yonent bi nee na xalimbaak dogal ak yàlla gi yàlla yëkkati na ko walis ñett képp koo xam ne dafa def dara tamam ko def dafa dof yàlla toggul ko ca dara fekk ba muy xiqee koo xam ne ngaa def dara ba ngay def da ngaa nelaw moo la dikkal nga nga nga def loo wurtoon def mbaa nga baxi loo waroon a def kenn du la togg dara fekk ba ngay xeewoo ab xale bu defee lu warutoon a def mbaa mu baxi lu mu waroon a def kenn du ko togg dara fekk ba muy mësooree kon ñaar indil naa la ñaari yi tamaa la njëkkoon a wax ne la na fekk waa ji jublu ga muy ah, an an an an isxaaqa ruuxil insaani fi'lan ñaareel ba an yakuna al qaatilu xaaqilan baaliqan kon andi naa la ñaari lay yooya layu ñetteel wa nag mooy na fekk reyloo huñ ko bu la imaam ne demal rey kële kay nga rey ko kenn du la rey moom la alquran ne wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilxaqi kooka kay illa bilxaqi jaa tax kenn du la rey beneen ba alquran waxat ne wa man qutila maqluman faqad jaalna li walihi sultanan waye nak fala yusrif fil qatl de innahu kana mansura dama nga seti ko ca suratul isra'i boo boko defee kon bo demee dang ko ci fekk tabarakallahu ci e, ci ayab fanwer ak ñett kon bi ci dess rek moy ray gi na fekk muy tay waye ray ak tay go xamne borom fa fayula dañ nako demal nga ray ko ko kay kenn du ko def kon nag loolu nañ ci bàyyi xel waaye nag buñ la rayalee yow nga jàllal bi ko dama góo ci yoon ne damay fayu balaa dara xew yow sax dañ lay ray alhamdu xawdun ay xisaasun illa an yaafoo waliyul maqtuli lislaam bëggul kenn di fayul sa bopp ndax nit bu fayalee boppam rek mu xëpp nit ki bu fayaloo boppam rek fa mbir mi xam kenn du xam fa muy tollooti loolu euh, dëkk boo xamul loo la ah kon nak nanci nañ ci bàyyi xel bu baax sartu rabi' bi moy kuñ bëggoon ray nga far ray ki la bëggoon ray rey kenn du la rey li ko tubi la genn goro ñew ci yonantu bi ne ko bi benn jël sama halalji, ji yonantu bi ne ko bu ko top de mu ne ko su fekke dafa bëgg rayante ak man nak mu ne ko nak ak mom mu ne ko su ma mu ne kon shahid nga mu ne ko ko raye nak mu ne ko safara la jëm ni la hadith bi يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال فلا تطيعه فلا فلا تعطه مالك فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قتل إن قاتلني قال قاتله براين تمام من قرايكو قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار من الحديث بتديه جرو ميل بنك مام لا لا an yakuna al qatlu bi adaatin yuqtalu biha aw bi misliha galiban ray ak ñaareel mi ngi amee ci nga am jumtukaay boo xam ne ku ko yore rek ku pare pour raya nga xam na jumtukaay yokk ku ko songee nit ki ka yaa pare ngir ray ko dama ko téere bu ngi tuddee muux nii Ibnu Qudaama moo ko liggéey mu ne ku jël paaka songu nit ki mbaa nga jël jaasi songu nit ki mbaa nga jël ponkalam xeet songu nit ki mbaa nga jël fetal diirale ko ci nit ki waaye loolu yooyu yëpp jumtukaay yu mën a rey nit lañ ku ko jël rey nit ki yaa ko tey boo ko waxee yaa ko tey boo ko waxut yaa ko tey su boobaa dañ laa war a rey wala ñi nga rayal ñoo moom sa bakkan bu leen neexee ñi rey la bu leen neexee ñi jéggal la bu leen neexee ñi laaj la diya ndax jumtukaay yi nga yore mën naa rey nit fetal man naa rey nit jaasi mën naa rey nit gobar jaasi mën naa rey nit paaka man na ray nit bejeen yi gaay di yore sax man na ray nit demet yooyu yëpp yu man a nit la kuko jël songu nit ki ya pare ngir ray ko su ko defee kon nag yooyu bu mu ci mundi don rek boko ko rek ba ray nit ki koku mom tay la amul werante loolu mo amul werante waye nak bu yalla dogalon ngeen songo nga jam ko jam-jam bu tuti jam-jam ba sax grawut wax dëgg yàlla mu jaaree ca dee noon na caa ñàkk dee nag loolu moom duñ ko jàppee muy tay ndax loolu mënoon jam-jam yooyu mënaan naa laal nit nangam wala nga jël xeer wu ndaw def ko ko wala nga kurfañ ko mbaa nga dóor ko wala nga tes ko ak yu mel noona ah mu jaaree ca dee yooya du ah xaaliban lu mën a rey nit lu man lu mën lu mënul rey nit ku ca reyee nit dañ koy jàppee muy njuumte jamono jii nag dafa bari lu mënutoon a rey nit te mën na rey nit léegi ndax nit ñi li may wax ñoo ganaar yi ñoo garanteetuñ de ganaaru pulaay yi ak ganaari olof yi xam nga ne duñ benn de ganaar yi sax olof yi moomuñ leen dañoo féex rek su ko defee kon nag bëri na loo xamee ne nii daanu rey ni te léegi boo ko defee nit rek rey ko ko boo am na xam ne boo leen pes ñuy dee am na ñoo xam ne boo leen di dóor kur feñ leen ñi dee li dal yonentu yàlla Moussa xam nga ne ba muy pes waaja jubluwut woon rey ko fa wakasahu Moussa fa qadaa alayhi waaye mu pes ko rek waaja jaaree ca dee su ko defee nag. te booba xam ngeen ne nit ñoo nga ñoo gënoon garantu suñ nit ñi téeméeri junne yoon kon nag yooyu nañ ko ci bàyyi xel juróom-benneel ba na fekk kañuy rey nekkut ku ñu ñoŋeel ci deret waaye kañuy rey kay su fekkee deretam nga duut luñ ñoŋeel niki xar biyu la kooku kay ku ko rey dara nekkut ci kuy xaree xale ak jullit ñi di wax lu bon jullit ñi nekk xar biyu ku ko rey kenn du la rey. benen ba ci teggu ki nga ray su fekke timit ku du ku ñoŋal deretam ni ki ku murtat ku ko ray kenn du la ray yeb hadith tek tale nako yonon to waxone la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullahi illa bi ihda thalathatin الثيب الزاني والنفس nafsu والتارك nafsi المفارق للجماعه نيت ني al mufaariq lil jamaa ñett mu ne rey nit ku tudd batab seede bi ci ñett rek lay dagane mooy koo xam ne jeeg la dem di njaalo mooy ku sangeexu rek njaalo dañ koy ray ku ray bakkan yaa ko tey dañ lay rey ku baxi sa diina ji wan gannaaw murtat dañ lay rey nii bu fekkee xaakim bi moo la digal nga dem rey ku mel nii kenn du la rey naka noonu tamit rey ak kuñ forcé boroom xam-xam yi dañ ciy wuutee boroom xam-xam yi wuutee nañ ci koo xam ne dañoo ñëw forcé ko ne ko rayal diw boo ko reyul ñi ray la. boo ko reyee ndax dañ la rey ñaari wax ci borom xam-xam yi ixtalif ixtalafal fuqahaawu fii man ukriha ala qatli shaxsin fa qatalahu dañ koo forcé ci mu rey nit ki mu jaaree fa rey ko ndax dañ ko rey xal bi bihi am yuqutalu bihi am am yuqutalu la fi akrahu dañ koo waral a rey moom miñ forcé wala ki ko forcé ba def lee ko def ju bon ji moom lañ war a rey wala ñoom ñaar ñëpp lañ war a boole rey leen boroom xam-xam yi dañ cee wuute yaa forcé nit ki ne ko boo reyul sa baay ma rey la boo reyul sa xarit bi ma rey la tiimale ko jaasi mbaa fetal mu rey ko ndax moom la ñuy rey wala yow mi ko ko reyloo la ñuy rey wala yéen ñaar ñëpp la ñuy bokk rey leen moo gën a jaadu de boobu de moo gën a jaadu buñ demee ba bi gën a xoyof ñi reyloo ki ko rey ba ca gën a nag xoyofat yi mooy rey ki ñu forcé nga xam ne amatul benn sañ-sañ su ko defee nag boroom xam-xam yi commencé ko déta ko ni li anal ma mamuura bil qatli laysat nafsuhu awla bil baqaayi min nafsil yi ki ñu forcé digal ko ne ko demal nga rey nit ba mu rey ko waaye waaye kooku nag gën gënta yell mu fi desati dundu ci kim fi jëlee ba pare comme jële na ko fi nañ ko fi jëlee rek fa kaanal waajibu alayhi an yamtania an in an infaasil qatli a wa yasbiru ala qatli nafsihi li gënoon daal mooy comme yow ki ngay rey gënu yow nga gënoo koo yàll ci dund xëppoo ko mérite ci dundu ne leen kon rey leen ma rek mu jeex man duma ko rey ndax deful ma dara nga muñ ñi rey la rek yow nga dem aljana comme jullit nga subaa ku sahid nga mais nag yow nga bëgg a dund jàpp ne man sama dund bee gën dund waa ji ba tax nga koy rey moo tax gars yi ne kon yow dañ lay rey borom xam-xam yu bëri na dañ lay rey ñoo ñu ñu bëri ci borom xam-xam yi loolu lañ d'accord wa amal amiru bil qatli fa huwa al qaatilu al xaqiqiyu mais ki nga xam ne tamit moo la forcé ne kaay nga rey ko bu ñuy seet nag ca dëgg-dëgg nag kook mooy ki rey pire moo tax kooku tamit dañ koy rey su fekkee ki la diggal moo la jox ngànnaay lu mën a rey moo la jox fetal mbaa mu jox la paaka mbaa mu jox la jaasi nga rey ko. koku timit dañ ko wara ray dañ koy ray kon lolu leer na la ñañ ci baye xel buñ la lo ni dal li gën muñal buñ lay ray sax nangul ndax da ngeen ki ngeen ma bëgg ray lo deful ma dara ta ki ngeen ma bëgg ray lo dafa am jabot, am nday am bay, am mérite ci dundu man nima ko amé kon man waruma ko ko xagn suma ko ko naré xagn ko sama bop dugal sama bop ci way usiruna ala anfusi walau kana bihim qasasa kon loolu lépp nañ ko ci bàyyi xel boroom xam-xam ya ba tey ñu ngi wuutee waqa maanaam waqad ixtalafa al fuqahaawu aydan fii qatlil asli bi farihi mooy waajur wi moo rey doomam baay jaa rey doom ja boroom xam-xam yu wuutee ndax waajur woowu dañ ko war a reyam duñ ko rey boo ma dégloo ma wax la ci li ci boroom xam-xam yi wax mbalde mi yëpp mooy li ëpp ci boroom xam-xam yëpp dañoo d'accord ne maanaam baay su fekkee moo rey doomam te fekk moo rey moo moo ko tay rey ga kenn du ko rey ndax moom ci yàlla ci moom la sababee am ak kii mu rey bu amutoon doomam bi du xam sax ba koy rey moo tax fal jumhuru min al fuqahaa yi yaraw na anal walida law qatala waladahu aw walada waladihi amdan laa yuqtasu minhu li annahu huwa sababu fi wujudihi bàyyi daal bu reyee doomam wala mu rey ab sëtam wala mu rey sët sëtaatam moo ko tey kenn du ko rey loolu mooy li gën a bëri ci borom xam-xam yi loolu lañ d'accord naa la wax na la ca Maalik wax ca kanam ñi tegtaloo xadiis ab Tirmisi bi mu jëlee ko ca Ibnu Omar yonentu ne laa yuqtalul waalidu bil waladi yonentoo ko wax mu ne duñ rey baay ci sababu rey gim rey doomam loolu la yonentu wax borom xam-xam ya nag ñoo ñu gën a dégg wax yonentu bi ku mel ne ab maanaam Ibnu Abdil Bari mu ne lii mooy luñ siiwee ci borom xam-xam yi waaye hijaas yëpp loolu lañ nag loolu lañ d'accord iraq yëpp loolu lañ d'accord loolu tamit moom la eh, amalu ahlil madina ña mujj ak yonantu bi nekkoon madinatul munawara loolu lañ doon appliqué loolu tamit lañ jëlee ci eh, Omar ibnul Xataab xatte boobu lañ jël ci moom te gis nga Omar lu muy àtte rek loolu la imaamu Malik jël moo tax Malik dafa wax ne duñ ko rey waaye danañ ko xiisal ci dee ju métti lay joxe parce que dee ja joxe su ma ko mën calculer dana mat téeméeri gëlëm ak ñeent fukk danaa la wax dee ja baa ja war a joxe waaye kenn du ko rey ñoom ñëpp ñu tegtaloo xadiisa bi Yaxya solo jëlee ko ca Saïd mu jëlee ko ca Omar ibnu Suaybu mun a génn góor gu bokk ci mu Mudlit ñu ko daan tuddee Qataadatu dafa sanni doomam jasi dafa ko dor jasi ji jasi ja dal ca kangam bopuma defe su ko defee jadde, ja mudikal doom ja dé ah mu suraqatu ibnu jashamin mu ñewal ko sayyiduna umar ibn khattab mu solo mu wax ko mbir mi ni mu demee omar nañ ko laaj ñu jël ja jox ko mbokam kiñ buñ jëlee dee yi ñu jox ko mbokkam mi mooy mbo mbokkam ki ñu rey mooy rakkam rek rakkam rek wala magam ja ñoom ñooña ñi dem jël dee ja bàyyi ji moom du lekk ca dee ja mu nekkoon ko lu tax mu ne yonum too wax ne laysa li qaatili li qaatilin shay'un ki xas rey du xam dara bàyyi ji nag dana joxe dee ja te du donn ci alali doom ji du donn tamit ca dee ji mu jox doom ji lii la ci Omar attewoon loolu la ko gisee waaye boo jëlee ku mel ni imaamu Malik moom. dafa jàpp ci benn riwaaye buñ jëlee ci moom ne am na façon rey goo xam ne bu ko bàyyi ji reyee doom ji muy rey gu ñaaw dañoo war a dañ koo war a rey ñu ne ko kom nan mu ne doom ji la bàyyi ji xoo ba mu ñëw mu tëral ko jël paaka bi reendi ko carrément wala mu jël fetal gi diir ko ko ray ray gu ñaaw gu mel noona xam ne ray tay la ku ko gis xam ne lii bàyyi jee ko tay ànd ak xol bu tàng Ah, imaamu Malik mu ne bàyyi jooja dañ koy rey kenn du ko laaj biye waaye danga dem tool ak du dem tool rek mu jël ulier bi sànni la ko wala mu jël kii bi xet wi dóor la ko nga jaaree ca dee bàyyi jooja kenn du ko rey waaye dañ ko laaj dee joo xam ne dee ju tàng lay doon nag waaye na su fekkee moo tëral doom ji comme ni ñuy tëreem tabaski reen di doom ja te loolu mi ngi xew wala mu jël fetal fetal doom ja ala kulli xaal su boobaa bàyyi jooja imaamu Malik mu ne dañ koy rey moo tax Malik dafa ne. Hmm, faraa annahu yuxtassu min alwalidi bil waladi ida dajjacahu wa dabaxahu li anna dalika xamdun xaqiqiyun tay la goo xam ne ray tay tay la pire nag laa yuxtamalu gayrahu wa li anna hada al amal yatanafa maa rahma allati tubia alayha al aba mu ne loolu tamit dafa dàqoo am te yërmande gi nga xam ne yàlla da ko mooñaalee bàyyi ci seen doom yi ñëwenti gi am ci ñoom ak di ci aju ku reyee sa doom nii dañ laa war a rey xam naa boo ma toppee suba nag ma wax ak yow ci ab jullit su fekkee moo rey xéeféer lu ki lislaam wax lam cay wax mooy ne kenn du ko rey waaye xéeféer bu reyee jullit danañ ko rey danaa la wax suba ci waxtu wi ab gor bu reyee jaam lu ci lislaam wax lam cay wax mooy kenn du ko rey waaye dana jël seet jaam ba li mu war a jar mu jël ko ci xaalis fay ko sang ba danaa la wax suba ci waxtu wi góor bu reyee jigéen fekkee ñoom ñaar ñëpp gor lañ jullit lañ mësoor nañ am nañ xel dañ koy rey góor ak jigéen amul parité foofa danaa la wax tamit mbooloo buñ buñ jëlee complot rey kenn nit sot sotlaante ko ñi jàpp ca tànk ñi jàpp ca loxo ñi bokk ko rey la ca gën a wér borom xam-xam wax ko ca mooy ñoom ñëpp la ñuy rey danaa la wax koo xamee dafa màndi jëfandikoo loo xamee dafa xaraam lu mel ni sàngara ba màndi rey nit ki di ci borom xam-xam yi wax wala mu jëfëndiko lu dagan lu melni soow naan ci lu ëpp ba mandi ray nit lu ci borom xam-xam yi wax dina la ko wax waye timit ci baye ko wax la nak lan moy saxal qisas ndax duñ teub rek fayu ci nit ki dafa am lu koy wara saxal moo yoy yep moy nek suñ darsu bi ëlëk ba ma toppee suba ci waxtu wassalamu alaykum wa rahmatullahi